commencer d'abord par baalu àq waa Sénégal yëpp baalu àq waa Fatick baalu àq suñu mentor le maire Matar Ba ak bépp collaborateur am rek di ñaan yàlla heure bi déwén fekk ñu am yeneen promotion kóllëre bi gën a ànd donc euh, ren nag euh, koor gi dafa tombeek benn mbas bu fi am donc muy coronavirus yeneen ñi di ko waxee Covid 19 autant pour moi donc ba amee nag dañoo gis suñu maire mu taxaw taxawaayu gor taxaw taxawaayu ku bëggu Fatick génn 10 millions jox ko comité de santé bi ñu toogaat mu génnewaat ay thermoflash ñoo weyaat leen ko mu toogaat jënd ay dund ñëw jox leen ko ñu toogaat ñu xam ne pàcc mi nga xamante ne mooy artisan yi ñoo gënoon sonn muy les tailleurs amuñ liggéey mu commander fi plus de cinquante mille masques pour jox ko gratuitement population bi cabinet bi wër këroo kër dëkkoo dëkk di ko joxe ñu xam ne ñun tamit ay ndaw lañ engagé wu si côté ñu ne ñun dañ koy jàppale fekk ko si lim nekk. ñun tamit ñu ñëw suñu koñ seet cinquante familles yoo xamante ne ñu ngi fi ñu jënd ay lave-mains ay gel antiseptique ay eau de javel ay madaar ñu distribuer ko famille yooyu. ñu toogaat ba si kanam xam ne comité départemental bi tamit soxla nañ ko parce que Fatick 17 département 17 communes la ñu jëlaat. benn appui boo xamante ne c'est en détergent ak ay produits ñu dem jox ko comité départemental bi au nom de la jeunesse de Fatick ñu toogaat xam ne sensibilisation bi des na ñu travailler comité départemental bi de lutte ñu jox ñu ay affiches ñu ànd ak ay ndaw may profiter de l'occasion di gërëm les pionniers di gërëm waa Croix-Rouge di gërëm ndaw ASC yi nga xamante ne ñoo ñu doon jàppale si liggéey bi ñu def campagne d'affichage bi. bi loolu jeexee nag ñu xam ne Korité bi jege si na ku nekk xam na ne xalangu dajul suuf am na ñu yor am na ñu yorul ñi doon liggéey di taaba taaba ak confinement bi ak couvre-feu bi am nañ problème. ñu dem seet suñu mentor Matar Ba mu jàppalee ñu ñu dem aussi si banque yi def benn prêt bu ndaw ne dañuy jàppale suñu askan ñu jàppale cinq familles yoo xamante ni ñu ngi pël ga ñu jox leen pombiteer jox leen soble jox leen diwlin jox leen petit pois ñeneen ñi ñu jox leen ginaar donc ñi si des nag ñu envoyé leen ay Orange Money parce que ndaw boo nekkee si dëkk am koy liggéeyal yàlla def ko nattu ko mu nekk maire dëkk bi nekk ministre nga xam ne li nekk si ndaddam bi dafa bëri da nga ko war a jàppale bu taxawee côté bii nga taxawee côté bee noonu lañ taxawee en tant que jeune suñu koñ noonu lañ taxawee en tant que jeune suñu dëkk au niveau national aussi ñuy jéem a défendre fu ñu nekk le drapeau du Sine c'est-à-dire mooy Fatick parce que dem nañ ba suñu mentor piment du Sine lañ koy wooyee te loolu dafa nekk loo xam ne dafa rafet ñu ñaan ndaw Fatick ñu xam ne mbas mi fi xew du fo mais dëgg la nañ jéem a respecté mesure barrière yi mooy bañ a joxante loxo mun nga nuyoo te doo joxante loxo booy tisooli nga tisooli sa coude boo nekkee fii nga sol masque parce que loolu daf si am solo booy jege nit boo ko jegee loo xamante ne weesul en mètre nga sol masque ba pare nag jàllale sensibilisation parce que mentalité yi yenn yi dañoo ne am na mbala amul mais dem nañ ba Fatick am na cas jaxaw am na kaa donc ñun ñëpp ñoo mun a ànd nekk derrière suñu maire mu nekk derrière le président de la république ñu jàppale ko ba liy jóge fi bu liy jógee nag ñu continuer liggéey bi pour Fatick Jofa Pam comme ni ko suñu bokk séeréer yi di wax may profité de l'occasion aussi di gërëm Mindiss TV gis nañ depuis début bi campagne de sensibilisation bi ngeen nekkee dem fépp foo xam ne am na dara ngeen tas wasaare ko si internet bi ba ñëpp gis ko ñu toogaat ne koor gi ñëw na ngeen dem seeti ustaas yi ñuy waxtaan delloo nit si diine parce que nee nañ balaa bu ñëwee si dëkk rek li ko mun a sauver mooy diine ñëpp dellu si yàlla ñaan pour yàlla jàppale ñu génne ko ñu xeex corona génne ko Sénégal pour ñu continuer plan Sénégal émergent derrière le président Macky Sall et le maire Matar Ba. d'abord première question mooy assouplissement yi. am par rapport ak couvre-feu bi ñu yokk heure bi. defe naa ne njiit. balaa ñoo xam ne yaay njiit ngay déglu sa askan. te président dafa répondre à la préoccupation des sénégalais. yi nga xamante ne bëggoon nañ génn tuuti ak bëggoon nañ dem ci lieu de culture. bi mu ko defee aussi gis nañ soulagement bi am mais gis dañuy gën a jàppale président mais duñu ubbi lieu de culture. Mm-hmm. cela veut dire tout simplement que le Sénégal est un peuple uni dans la diversité. Mm-hmm. ñu bëri dañuy wax mais bu président waxee rek mi nga xamante ne moom la Sénégalais yi fal. Mm-hmm. ci élection mu am plus de cinquante sept pour cent donc sénégalais yi ñu ngi am ci moom confiance ba léegi ñu ngi koy déglu. beneen bi ouverture classe yi man yaakaar naa ne président clair na si li mu wax il faut apprendre à vivre à côté du virus ou avec le loolu mooy lan. bu njëkk bi ñuy am cinq cas 10 boobu xamuñ woon virus bi mais instant bii nii xam nañ virus bi xam nañ ni muy doxee jàpp naa ne bu ñu respecté les mesures barrières xale yi dinañ mun a dem jàng parce que yéen peut-être boobu ndaw ngeen woon mais bu ngeen xamoon li nekk ci année blanche wala année invalide baaxul ci dëkk te nee nañ l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme la réussit de toute société donc ñi ngi jàng war a def examen bu leen bàyyee ren defuñu examen pertement la pour économie pays bi pertement la pour savoir fair pays bi pertement la pour développement ak plan Sénégal émergent yaakaar naa ne gis ngeen ne barki démb ministre Matar Ba ñëw na fi ànd ak son collègue Dame Diop ñu wër école yëpp yi nga xamante ne ñoo concerné ñu désinfecté école yi ba pare mais fa des lots de masques yoo xamante ne dinañ mun a sàmm xale yi beneen bi mooy CM2 la troisième terminale cela veu dire que c'est des à part ñi nekk ñi ay mag lañ donc bu amee tuuti organisation rek enseignants yi jàpp si mu am ay thermoflash mu am ay masque mun nañ si réussir maintenant nag comme li nga wax cas yi bëri tuuti woon na ñu tëj école yi cas yi bëri ñu ubbi école yi cela veut dire que tàmm nañu léegi vivre ak le virus boo tàmmee vivre ak virus nag da ngay xam nan nga koy moytoo parce que paludisme bi moo ko fi jiitu te ñu ngi dund ak paludisme bi tant bien que mal ak moustiquaire imprégné yeeg leneen li moustiquaire imprégné li mu nekk si paludisme loolu la mesure barrière yi nekk si Covid bu ñu sensibiliser élèves yi rek te enseignants yi premier cours yi mesure euh, barrières yi la ñuy jàngal élèves yi pour ñu mun a euh, moytu coronavirus bi continuer Sénégal yaakaar naa ne Sénégal ñun ñoo ko bokk comme ni ma ko waxee rek bu ñu dégluwee les autorités sanitaires déglu les autorités administratives seet gox-goxaat yi li ñuy xeexee ñu ànd nekk benn def benn say dinañ mun a xeex Covid 19. parce que ñun ay jullit lañ ay chrétien lañ. ay ate lañ mais ku nekk am na loo xam ne mu ngi ko gëm bu ñaanee si loolu rek yàlla dina baax. incha allah yaakaar nga ne war nañ ko mën waaw yaakaar naa ne buñ demee buñ demee ba euh, passé pic bi buñ demee ba kaa yi wàññeeku mun nañ dindi couvre-feu bi maa ngi koy ñaan mais président mooy décider ak techniciens yi parce que ñoom ñoo ñu gën a xam li xew. président ak techniciens yi ñoom ñoo ñu gën a xam li xew donc ñoom mun nañ def tout ba. Euh, fexe wàccewaat ko bu baax pour économie gën a doxaat gis ngeen luuma yi ubbi nañ ko gis ngeen lieu de culte yi ubbi nañ ko donc loolu li mu amee solo mooy président de la république day déglu population bi président de la république dafa bëgg économie bi doxaat parce que économie moo téye pays te ñi nga xamante ne ay père de famille la ay mère de famille seen gagne-pain ñu dépendre ko ci marché bi bala ñu dépendre ko si taaba taaba bi ñooñu boo leen xañee day doy waar donc ñu ngi xalaat ne fi ñu jëm si kanam couvre-feu bi dina deñ maladie bi pandémie bi dina dem Sénégal continuer dox ni mu doon doxee pour ñu atteindre les objectifs yi nga xamante ne moom lañ fixé pour 2024. waaw jëf làmp yi ñu ngi Fatick. ñëpp gis nañ ko. boo demee Mboubaan boo demee croisement TP quartier boo munti dem làmp yi ñoo ngi fi Fatick bu amee 1000 lampadaires solaires muy leeral mbedd Fatick yi. leeralul kër Ousmane leeralul kër Massène mais Fatick waa yëpp seetuñ kii opposition la bokk seetuñ kii mais Fatick nga ñëpp ñu ngi leer loolu bu amee fii nii waruñ seet kii la mbala kee dañuy seet lan lay jëriñ Fatick par rapport ak éclairage public éclairage day xeex insécurité éclairage day xeex banditisme éclairage surtout bu solaire bi day permettre que courant am que courant ñàkk am Fatick yi dañuy dox muy leer instant bi nii koñ boo dem mooy Fatick du doomu Kaolack moo koy développé du doomu Dakar moo koy développé mais ñun doomu Siny surtout Maam Mendy Sy ñun ñooy développé Fatick ragal a féete nag day xañ a wërsëg Sénégal dañoo choisir président de la République def ko président Fatick choisir Matar Ba def ko maire donc tant que mandat jeexul ñun ñëpp doomu Fatick muy góor muy jigéen muy mbag muy ndaw dañoo war a def benn say jàppale ko pour Fatick Jofapaam jàppale ko pour Fatick émergent ñu ànd nekk benn derrière suñu maire ñu liggéey beneen bi ñu yéene wante jàmm te rafet njoot rafet njort bi mooy lan mooy li nga xamante ne Fatick la am Fatick la nekk muy jàmm ji muy agriculture muy jeunesse bi ñu jàppalante pour liggéey Fatick bu ñu ko liggéeyee rek Fatick dina jëm kanam bu 21h jotee sax avant couvre-feu bi di jeex laala wax da ngay gis xale yi ñuy fosi biti parce que puso bu réeree sax ñu for ko loolu bu amee nag ki fi nekk lañ koy tombé mooy waral ay gaaf ki fi nekk mooy le maire Matar Ba moom lañ koy gërëme parce que si ayam la lamp d'air solaire yooyu ñëw comme niñ doon wax temps yu Alioune Sène la lampe yee ñëwoon temps yu Matar Ba la yi kii si bilan yam la bokk dinañ ko euh, comptabiliser dinañ def promotion bi ba Fatick waa yi préserver ko parce que ku lamp nekk sa weti kër mbala mu nekk sa koñ entretien bi yow la war parce que samba booyi mbala saay-saay mun nañ ñëw jëm si dara mais bu fekkee ne koñ ba am na fu ñuy dajee di waxtaan lamp boo xamante ne dafa am lu siy clignoté nga yëgal ko waa mairie lamp boo xamante ne gis nga ay naka sudul noonu di si dugg nga yëgal leen ko parce que gis nañ làmp yi nekkoon route nationale ko samba booyi ñëwee woon di alors que bu leeree Fatick la leeral te ndamu Fatick mooy ndamu Fatick waa yëpp donc ñun li ñëw jaar si loxo le maire Matar Ba mu jóge si président de la république bala mu jóge feneen ñun lañ yemale parce que na nekk njëriñu Fatick rek te yaakaar naa ne lampadaire yi képp koo xam ne doomu Fatick nga kontaan nga si bëgg nga si parce que gis nañ waa Poxaam la ñu bind ne Poxaam musul am lamp nguuru Matar Ba la ñëwee loolu suñ fierté la en tant que collaborateur de maire suñ fierté la en tant que ñun ndaw yi fi nekk nga xamante ne lekk boobu day continuer di leeral Fatick ni muy leerale chemin président de la République ni muy leerale li ñuy wax émergence ni ñu leerale ni ko séeréer yi di waxee ma koy wax yaa sam Fatick jofa faam yaa sam nu jeg jam jeganeel jam ko mbino yaa sam roog ref kay naak noonu merci beaucoup Ousmane merci waa Mindiss TV big up à